ay ay ay invité euh, euh, xalif bi résidence xamoon ko bu baax lata ñuy dem Touba. Hmm. bu dégg naa Bougane mu wax ay jaar euh, wax yoy hmm. mota manela Serigne Bass Abdou Khader mo len weddi mom Bougane weddi na ko xanaa kay ku ñu weddi war nga mën a ruus bi ne mom yabalul kenn ci état yabalul kenn pour mu jappalé len ci ay résident xalif bi mo wax de yabalul kenn pourquoi en faire un débat parce que gis naa ko démb ci plateau ay nit dinañ wax sax luñu luñu xamul ci dossier bi wax nañu ba xam sa information buñu xamul xam nga nit fay tok ci plateau di wax fen di fen de <laughs> mais mu dem ba mom mu gëm ni ay fenam ay fenam da koy dem ba gëm ni ke dëgg la en sachant que yaa ngi fen yow mi di wax mais da ngay gëm say fen c'est ce qui est très grave te Sénégal ñu ngi bayyi lolu muy wéy ay soi-disant ay politiciens dañuy bu ñu naan xam nga man dafa am kàdd bu am solo bi ma wax à Touba. Mm. bu fekkee yaa ngi fàttaliku. Mm. gis naa xale yi recoupé ko dugal ko ci TikTok mm. bi. ngeen bàyyi ba ñëw ñu soog politique. dama voilà merci. dama ne nañu bàyyi ba màggal gi jee ñu ñibbi seen kër ñu doog a politique ñu dellu Dakar dama ne <laughs> Bougane bàyyi leen ba ngeen ñibbi dakaar ngeen doog a def seen politique bàyyi leen Touba tranquille nit ñi dañoo ñëw màggal si dañoo ñëw wuti ci diine mais ñëw ñu fii pour politique. mais Bougane dafa bañ a bañ ba insister yóbbu loolu à à Touba parce que ba muy no non état war na xam ñaata ci mbalit lañu <laughs> non mais wax jooju sax ay a la ma def ñaata ci ay mbalit. Hmm. la ñuy produire à Touba ñaata ci ay. xam nga wax non non mais estimation la. xam yooyu xam nga waxu kasaw kasaw. mais mais mais il a fait juste son. xam waxu kasaw kasaw weesoo la loolu. politicien doo daanu aussi ba dama lay wax ce qui se passe. Hmm. je ne défends personne dama ne. je ne vais jamais permettre les supposés politiciens là ni manipuler ba dougal ni ñi ci diine wala dougal ni ñi ci nous on va défendre ça on va combattre ça. alors en révélant attends en révélant la vérité. dama le régime a refusé asile aux invités du Khalif. Voilà, c'est hmm. archi faux le Khalif a dit même qu'il n'est pas demandeur l'organisation du magal l'organisateur du magal Serigne Bass Abdou Khader nee il n'est pas demandeur mm, mm. ñoom musuñu bind état wala musuñu yabal nit ci état pour ne ko jàppale li ñu donc wax ji nañu ko muur sànni ko ci mbalit ba parce que jarul wax ni taxawti di tirer ci Omar Diagne mais maître Omar Cheikh Omar Diagne ni tirer ci ci ci kii ko c'est une affaire inutile et banale moy ay ay politiciens ñoo taxaw bëgg manipuler jaaraale ko ci magal gi heureusement que waa Touba bu ñu témoigner ni que loolu c'est archi faux c'est une information intox la amul ay xibaar yu wérul ñoom mosuñu yabal kenn ci état te ñoom xam nañu état bu ñu soxlaay état xam nañu fañ la ñuy jaar état mm. bu ñu soxlaay tey jomaay le xalif en tant que xalif xam na fan lay jaar ba jot ci jomaay bu soxlay Ousmane Sonko xam na fan jaar pour. jot Ousmane euh, Sonko mais ñu donc moom muy jotali. ki bind lettre bi sax day politique muy Serigne Cheikh euh, Mbacke. non mais dañuy euh, politique. Euh, dafa nekkoon benn partisan bu Macky Sall. damay wa APR euh, xam nga man loolu laa bëggul wax yow yaa ngi yaa ngi nii di ko wax. moom nag euh, moom mi ngi préciser aussi que ni moom moo bind lettre bi adressé ko li nga xam ne que moo di la présidence au nom de la commission qu'il préside exactement. day présider benn commission jëm si wàllu comité d'organisation bi.

sama sénégalais yi ma jaakaarloo laay waxal te ñoom laay respecté. Hmm. donc ñi supposé ñom ay journaliste ay xawma lan man ma parce que li may wax ni do pour ñom pour sénégalais dama ne man bëgguma won egg ci ay affaire wa PASTEF wala wa wa Benno Bokk yaakar wala wa APR moo ma jël affaire bi camouflé le né la les autorités de Touba n'ont pas demandé à Gilles pour que état jàppale len pour ñu mëna recaser leurs invités. ils ne l'ont pas dit pour ne serait-ce que mounou bugguma loon wax ni que il est de APR comme yow andi nga en léegi nañ ko teg ci table bi mm. waxtaanee ko mm. dama ne ki bind lettre bi C'est bi yëgu ko Bas c'est sëñ Bass Abdou Khadir yëgu ko les autorités de Touba yëguñu ko waa ji lettre bi présidence mota tax ñu bañal parce que la signature celui qui a écrit il n'est pas direct connecté au Khalif voilà à cette commission d'organisation. Moi, le gouvernement n'a pas donné suite à cette requête. Il faut que nous, les Sénégalais, Une personne, vous ferez APR, te moudjite ben commission, tu organisation bifo, tu magal bi, le gouvernement pour me demander asile à leurs invités. Mais Khalif bi yegouko, Serigne Bass Abdou Khadir yëgu ko. ak kenen est-ce que xalif bi mën na yëg lépp Arfan. non non non war nañ ko yëgal ko affaire tariha ak état nga ne Khalif bi waru ko non non xalif waru ko yëg. non yo ya ko buñu bu laj présidence ben affaire nga ne Khalif bi waru ko la responsabilité incombe aujourd'hui au Khalif. xam nga lolu maintenant nit naka lay jëlee bataaxal bind ko état sans l'approbation du Khalif général ou bien de son porte-parole. Bo pare sénégalais décide de faire débat sénégalais décide de faire débat On que ñu recadrer le gars de Benno Bokk qui a écrit cette lettre là non non duñ ko def ñoom dañuy tirer si Diomaye non Sonko c'est la première fois ñoom ñu bañal leen ko c'est la première fois nit dina wax information bi mu maîtriser malheureusement nit dafay wax information bu nous maîtriser dans ce pays nga gis ay ñoom Madiambal Diagne di si yow lo xam te yow xamoo ci xamaanoo ci dara au nga dem laaj ñu wax la nit ki bind lettre bi xalif bi yëgu ci dara le porte parole yëgu ci dara parce que yóbbu wuñu ko. yabaluñu nit de xalif bi bu soxlayee ñooñu pour ñu ñu ñu jox leen agile le président de la république était à Touba. Hmm. bien avant le magal. Hmm. pourquoi du ci waxtaan ak moom. c'est clair Ousmane Sonko était à Touba le premier ministre tase na ak Serigne Bass Abdou Khader qui est l'organisateur du Magal. Hmm. Pourquoi souligner au point Bobo hmm. Dédit. Il a fallu que nous xaar Ousmane Sonko ba mu ñibi yomay ñibi eu def lu mu def parce que il est de Benno Bokk Yaakaar dafa am lu mu nam ci mbir mi saboter le Magal. Hmm. il a voulu saboter le Magal. je vais te dire pourquoi il a fait. non il a voulu saboter le Magal. pour que ça dit que ñom lepp lu ñuy def c'est politique alors c'est clair le lu ñuy def c'est politique. alors c'est-à-dire que même il a voulu saboter le magal pour nous dire pour nous voir que ci nguuru la magal gi amee problème. alors c'est clair euh, Mais non. mais il l'a pas réussi. alors mi non par rapport à li nga que modi justement euh, coow ak li nga xam que modi di donc pour le moment euh, ki nga xamné que modi Cheikh Omar Diagne ak mi ngi na ni tam du ci li nga xamné que modi khalif bi comité d'organisation de dañoo bari peut-être si li nga xamné que modi magal ku nekk da ngay jéem a exactement exactement euh, son épingle du jeu exactement alors ñaari ñëw si leen itam sans plus tarder du côté de la régie Arfam. xamal xamal lolu balma hmm. daguma la xamal lu ñuy def ni à Touba. Hmm. génnee batahal beru seen bopp génnee bataaxal yónni présidence pour supposer que wa Touba ñokoy laaj. alors que c'est faux. wa Benno Bokk yaaka c'est c'est le même coup qu'ils ont fait à Libye. Hmm. oui dañoo imiter la signature du premier ministre Ousmane Sonko yónni ay non tu vois tu vois euh, alors dina si ñëw euh, par rapport ak wàllu wun mais alors ñu daal di ñëw si leneen itam sans plus tarder moy euh, li nga xam ne que moo le